basumo basumo mbare soko non ko abide iba famale dia nafiyo nafiyo koy Macron mu ngi Sénégal le premier comme ça fait 15 jours ma nek ci tay la ci gëna mëna wax avant bobu damay développer lu ndaw ci Sénégal njaay wax jangini ngi bari ma leeral ñaari phase yu ndaw duma góor bu ñàkk jom duma nit ku ñàkk jom duma ñoom doom bu ñàkk jom man Casamance maa fa dem dugal sama bopp bokk maak waajur yi nga xam ne mois de février passé bii février bii bii bii bii bii bii weesu Macky Sall lañ jàppale ba ci rey seen bopp ba élection présidentielle je ne suis pas de ces genres de bokuma ko wajur yi nga xamne ne jëluñu seen responsabilité sen njabot ba sen njabot demal bopam amal bopam yoon ku ne mo ma jur xam ma day fen waxul deug il ment sur toute la ligne ku ne mo bok ak man man xamna ma day fen il ment sur toute la ligne day fen dem len fi ma dëkk nak def micro trottoir bokuma ak ñom dedet ku len na man ño bok day fen je signe je persiste ragaluma samay wax parce que mois de mars bi passé mënon nek borom kër sa njabot faral Macky Sall pendant 12 ans d'affaire nga faral Macky Sall sa njabot yeb di way Macky Sall man may xeex ak nga bëgg ne ma yow ya ma jur ba paré dem bay wax si man c'est faux archi faux kooku man ma leen ko wax ragaluma ma samay wax kuma wéddi nak ma direct dëkk bi sëngeem du wax ci kër jambour jamais de la vie je ne suis pas ce genre d'homme salut le chef du wax dem len rek 12 ans yi passé ngeen déglu ngeen xam fa la bokone fa la dekkone ñuma juroon juróon Casamance j'ai été initié lim fa xam baye ñu bari Sénégal xamuñu ko fa. li fa duggal muy jàngale ak man fi ma yegg wa Casamance demal Lindiane nga laccé demal Grand Dakar nga laccé maykan demal Mandina Mankagne nga laccé maykan dama jembere nga laajte may kan canton nyafra abene ba andi gaay ñu jël Ousmane Badji tëj ko ci côté bi lolou dem len Casamance cook c'était une partie pour me répondre kon ku len ne ñoo bokk bay xamna ma day fenn mo ma jur xamna ma day fenn kooku man mako wax ragaluma sama yow dedet man démb mënoo nek sama dëmb démb tey nga bëgg nek sama wajur démb nga bëgg nek sama rap tey nga bëgg nek sama wajur tout ça c'est archi faux nit nak li wax Sénégal ci bonne da ngay sàngu sutura mbokk yu mbokkoowul ñu bëgg la <laughs> desange man duma ma desange man kenn mënu ma déstabiliser ndax ku dugg géejewaay di nga xam may kan ku dugg amoo 456 di nga xam lu tax ma jóge fa ak kañ laa jóge Casamance laa bokk bokk ma géejewaay daraay géejewaay bokkatum fa dara seen yëf yi yooyu kii Mbàkke la sant day topp tànki baayam ba nekk moom déedéet sa baay su nekkee si lu dul dëgg yow loo yëgul demal sa yoon bëgguma Macky Sall ku doon bëgg Macky Sall bëgguma ko pour la ma Sénégal dem Ziguin maa ko xam te dina ci andi lima ci live Ziguin Ziguinchor ken live ko si je me suis engagé sama bakkan la fa joxe sama deret la fa joxe bokk mag ñi parak parak ouf dom dàq dom farando dom tasker kër bokk genre keur yoy dedet dama koy leeral ndax ragaluma sama wax Macron lay ñew Sénégal ma gis yeen ñep ngeen nek ci ben genre affaire sagate bi takkarnaase ba professeur ñam ci la dégg mu wax pour di len né problème égrégore gis nga bëss bu africain yi fi def ni ñu defoon Macky Sall France ngeen am problème bëss bu africain yi ñëwé waat France defaat seen simbeeku yoy ñu daan def c'est-à-dire di dox di wër sen taatu neen yoy ñuy def biir France ñoomi it di fayu commencé moolu ñun sénégalais mën nañ saganté suñu biir mais ñom africain xamuñu saganté ki yakkar na gaay saga yi ni da leen di déstabiliser da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop je vous avertis encore nak te fi lay paré ci avertissement yi Macron mu ngi ñëw ngeen naan pour tirailleurs yi je signe je persis ne woon naa leen mu ngi ñëw noo kuy góor rek bés boo xamee li nekk ci contenu bi je vous attends vous tous ngeen génn wax ma lan lay def si ak lu mu fay wut si intérêt moo ko gënal ay tirailleurs ndax ay tirailleurs ñoru ko

lii ñuy nëbboog xaar ba mu des une semaine ñu ne leen Macron day ñëw le premier c'est bien beau mais foog waxtaan ak France kooku affaire système la anti système parce que banques yi ñun moomuñu ko tant que amoo sa souveraineté tant que amoo sa souveraineté munoo génn ci loxo système bi kon moment bi gars yi li ñuy prévoir si suuf ak ay marché contre criminalisation homosexualité bi yooyu c'est des faux problèmes man si man affaire homosexualité bi nagn ko tek ci souf du waxu léegi day ñew mais avec le temps mais du waxu léegi réew mu amagul banque amo kay boy défaral sa bop amo big boy défaral sa bop nga bëgg a nga bëgg a yow eh ben, voilà si si papa là-bas yow ya war défar li c'est faux c'est archi xam naa bu baax lu may wax te am na nag yëf yi fi muy toll ñëpp a ngi grève yéen ñëpp gis ngeen ni ñëpp a ngi grève tout le moon est en grève xaw ma lan moo xew santé jël nañ mbalit bi jël nañ étudiants yi jël nañ ISEM nag bu buggee wax ak yow nga bañ dalay corsé lii mooy corsé bu la corsé di nga wax ak moom par force soo waxee moom kan mooy nekk ci intérêt ak kan moo dul nekk ci intérêt Gars, nous sommes loin de nous détacher du système. Nous sommes extrêmement loin de nous détacher du système. ce que je veux wax La politique judiciaire c'est le système c'est bien beau mais bracelet électronique ngi jël tëj jël tëj jël tëj day yokk frustration bi day yokk waxkat yi mënul wàññi waxkat yi c'est impossible gars yi dañuy gën a wax kenn mënul wax ba kenn du wax barki sëñ Bamba kenn mënul wax ba kenn du wax kenn mënta wax ba kenn du wax mënoo jël gars yi di leen tëj kenn du wax mënoon na gars yi ñëpp gauche la ñuy doxee te am ñu bëgg a doxee à maa bañ te nguur boo ci féetewoo takk-caq da gën a wàññeeku mais doo gën a yokk je vous encore rek

ñu ngi jëm ci guddi yoo xam ne Sénégal bu gouvernement bi wàccee waatu rythme bi impôt yi domaine yi ñu bëgg a jàpp ni ni leen milliards yi buñ ko jàppee ngeen lekk ngeen naan milliards yi buñ ko jàppee lépp dox billahi yi mun te nekk milliards yi doxalul dara te yàll na ñu gis milliards bare leen jox milliards yi ñuy fay mooy andi problème bi moo taxoon ma naan leen Sonko na moytu waxu politique Ousmane Sonko moytu waxu politique Ousmane Sonko daa war a moytu waxu politique parce que yàgg woon ni wax leen huit milliards wax leen douze milliards te loolu yëpp mënagul nekk ndax rien n'est encore sur place lépp déclenché na sa sa kanam crise sociale la la gars di di loolu loolooy istam crise sociale kenn mënu ko tere mu am sans compter nag wax ji bëri ji si réew mi ku nekk di génnee di teg ku nekk di génnee di teg te ñëpp mën génnee teg lu leen neex léegi daal dossier boo xam ne buñ la ko passé ça n'arrange pas Pastef baaxul déedéet man xeexalu ma woon Pastef de déedéet man état de droit laa doon xeex man bonne gouvernance man injustice laa doon xeex mais mënumaa xeexal jëmmi doomu aadama te kenn du ma tere xeex loolu ma doon xeex ba dem Casamance engagé wu Ousmane Badji ñëpp xam ko ba ñu jël leen tëj kaso <laughs> saa man li may xeex xam naa ko waaw waaw xeex bi tollu woon na foo xam kenn amul woon nday kenn amul woon bàyyi xanaa tey la neex gaa yi Sénégal moo neex xeex bi tolloon na foo xam kenn juru ci woon kenn kenn takku ci woon kenn jabar kenn waay kenn ñëpp a abandonné woon gor yi rek a ci desoon di ci des nekk gor continuer di wax sa dëgg et eh bien voilà saa tàmm ngeen dénigré Ousmane Sonko sax di ngeen koy dénigré ndax li ñuy xam si moom lu bëri ci parti bi lay jóge fii ñëpp la ñuy dénigré man na kenn mënumaa dénigré waa waaye xam nañ ma

ken muntal wax yen wagge waa way bu len far wa bu len far quoi nit boy wax <laughs> bu len far ci man wax len juste deug bi mais bu len nangou far ci man wax len juste lan mo xew ci deug bi keur meuna tabax neex nga sante mbacke ñepp di xëccoo maa sant de de bokuma ci buguma Ken mënul wax lepp ken du wax lepp Ousmane Sonko nak comme mu ngi dégg ba tay ñeppay dégg ñeppay jël ay coup ñeppay dégg ñeppay jël ay coup gor nak mën nañ la jur nga gën leen gore intérêt mënuma téye fenn am am mën ta soppi sama jikko négatif ñima xamone bi may xalé ba tay xam sama jikko su ma maatee dara di ko xeex dama j'arrive à mes buts toi Kourouma Sagna yow laay demandé rek ndax su ma meree toujours yow yaay yow laay andi allusion yow sama vieux père yow laay demandé des excuses ndax maax yow la yow xam nga man xam naa li ma xam Casamance ñi dina fa judd ba dee doo ko fa xam li ma fa am ñit dina fa judd ba dee doo ko fa am am lañu mu nakari nak ñu bari génération bu nekk ak ñuko wara diriger génération bi nekk ak ñu wara ñew bañ mom mom leen ne mom ma jur bi Ablaye Wade ñëwee mu commencé wax il a vécu pire que moi luñ ko fi sagawul amul ñepp a mujjee ak mom yeen di ngeen mujjee d' ak man mais man duma mossa nangu reconnaître kenen jur munta nekk ken juruma won bi muy xat ma sante ndjay li tax ma sante ndjay goré tax code 250 bay nunke la code 250 dama joxe sama garantie duma war ay nit man duma xaar ba mu neex ma mbokk ak yow bi muy nakari duma mbokk ak yow je ne suis pas ce genre d'humain buguma won sonko dem su don buguma won sonko dem kon duma ko bëgg tay ma bañ man duma genre nit yoy am bañ sonko dem tay nga bëgg bëgg ya trop de transhumance te transhumance ñoo na nara tass lepp transhumant yi ñoo ñëw xoola dugal wax bu sew fu ay gan nekk coow lu de bëri gisu leen bi gan yi bëree électeurs yi dañu wàññeeku de quatre cent mille voix waxi gan nag tey laa si tontu dootuma si tontu sama këru àdduna nee nañ leen man maay xaadim Ouzano laaj leen lan moo tax ma séexlu tuur boobu laaj leen lan moo tax tur boobu sax bëggatum ko dégg yéen ñi di xëccoo am baay ju am barke di xëccoo am ba ñàkk xam seen barke la ñàkk xam seen bopp ñàkk wóolu seen bopp ñàkk xam seen borom moo tax ngeen di xëccoo di wëri barke j'ai pas besoin de certains trucs man bi ma amee quatorze ans ba tey maa jël samay responsabilité un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze samay responsabilité doom maa ko yor ba tey kenn jëlaluma ko

lan lay wax ci yow lu nit ñi war a gëm ku leen ne xam na ma je signe je persiste day fen je signe je persiste loolu moom bañu ma ci kenn amul ku ma jur ak amul sa mag ak dañuy duul ku leen ko wax day fen ne leen lii mooy liggéeyam lii lay def lii lay def il ment sur toute la day fen ndax man jàppatuma foofu lenn gis nga ñit da ngay wax luy dëgg wax nit ñi luy dëgg am naa si nag koo xam ne nee nañ sama mag la moom c'est un kooku moom loo leen wax si moom <laughs> lu mu leen wax baax na c'est un corrompu def na ko géejawaay ba léegi kenn déglootu ko <laughs> def na ko géejawaay bu kenn déglootu ko muy corrompu la ñi nga xam seen poche la ñuy waxal wala intérêt daal man en ah, ah, grosso doo du ma ñitu intérêt te dem leen defal seen bopp micro trottoir comme Pastef c'est le parti de la dénigration dénigré nañ ba falu continuer si dénigration ça ne passera pas ndax man set main lay demee on the mine monsieur Baye dem baptiser sama bop joxe sama deret jël sama santi jabar Ken mënul wax lepp dem Casamance rebaptiser sama bop ba am fa dom baptiser ko fa ken du wax lepp lima xam Casamance man mako ko depuis 2009 je suis le seul bu dugg biir Casamance engagé combat bi bir Casamance di régler sama problème tribunalu Casamance kadior su dul woon dara ma tudd ay tour mais kenn mënul wax lépp parce que c'est pas le but du combat c'est sama biu combat mooy Macron bi mu leen newoon day ñëw ma gis boo yëpp c'est pas vrai c'est pas vrai te tey Macron mu ngi yegg si léegi comment gérer ça ak lan la fa Macron di wut si ay tirailleurs sénégalais lay ñëw commémorer wala les tirailleurs français loolu lañu war lijjanti ndax suñuy mam yi lan mo taxoon ñu nekk ay français ba tay seeni set yi ñëw fi France ñom ñep nekk ay français lu tax suñu mam yi doon ay français ñi ciy sénégalais bariwul de man sama maam tirailleur la deewul sax foofu te ay sëtam yëpp ay français lañ fa laay waxee chaque jour lan moo tax suñu maam doon ay français ba pare ñu ñuy bëgg a rey ak ay commémoration fii commémoration fee commémoration dëkk depuis bi ko Ibou Fall woo waxee laa ko commencé étudier bi ma demee étudier ko laa ne effectivement ñii ay français lañ nañ leen lijjanti pourquoi nos grands-parents sont des français kon tirailleur sénégalais la Ou les tirailleurs français fan le problème de am avec y avait combien de tirailleurs sénégalais dans les rangs ñu malgré que c'était des noirs Lolo jar lijjanti actuellement Faut que déclassifier les dossiers comme je ma l'ai John Fitzgerald Kennedy chauffeur am moo il a pas démarré Trump il va déclassifier certains dossiers fi may man que ko xam Fumez fi may man équipe ak ñoom ñii may liggéeyu ñoo ko xam keneen mënu ko xam te déclassification des dossiers day tax ngeen xam ne Casamance dafa am indépendance Sénégal mosu ko moom parce que les documents ay document moo fi nekk kenn mënu ko teggi déclassifier dossier dafa war a leeral affaire tirailleurs sénégalais yi pour de bon ba le système est très large mais comme Macron nag il s'en fout de no morts la ay intérêt moo ko fa andi su ñëwee yéen li ñu woon di won lañ leen di won mais li ñuy régler su suuf c'est ces entreprises foog mu sauver ay bien moom kenn mënu ci dara système intérêt lay sauvegarde banque bés bu nekkoon société waaw mais banque ay ñita ko moom man maa moom banque ak sama njaboot yow yaa moom assurance ak sa njaboot kee moom moom kii pharmacie ak njabootam noonu la àdduna di doxee moo tax ne anti système déedéet anti doxalin waaw mais anti système mënut a nekk wala boog nekkagul avec ce nouveau mënul nekk. boo étudier contexte yi nu réew mi bloqué da ngay xam ne système baa ko te bu ko système bi bloqué kon foog nga teguwaat si raay yi pour mën a amaat développement tant yaa ngi wax FMI ak banque mondiale. pour le cas ñam Niamsi moom lay tëjee benn communiqué. ñoom ñaar mu wax Poutine mu am ñaari voix yéen ku leen yeewoon ne leen Poutine mu ngi wax ci CEDEAO yéen sénégalais est-ce que yéen di ngeen ko mën a góobe quoi ku leen ne woon Poutine mu ngi wax ci CEDEAO est-ce que vous allez góobe ça ñam ci wax saaga yi déclenché na ku nekk assumer say responsabilités par rapport à saaga yi bës bu gars yi commencé riposte day dagg gàllaaju kilifa baaxul gis nga égrégore moo gën a bon ci àdduna mooy làmmiñ mooy tuflit Bus bu gaay commencé riposté di ngeen xamné ño tak takk pour dag caq bi bu gaay lu doré bo boo buñ ci la mo ñak nga xex bi même bo doré ba nit ki daanu ta perdu le combat parce que caq ba day dag basuma basuma mbare ben secret rek kër bu commencé beuri beuri gan yi la gan yi ñan la transhumant février bi passé ñi fi bañoon Sonko Bimolin len leen ni élection législative yi ñu tok di défendre Sonko bay def ay conférence de presse sañ saga tay Sarr la len ni c'est fini c'est fini na ku nekk dem yonam yenn transhumant yi man ñen ñi buñ naré far ak Sonko mom je préfère man continuer ma route moy lan ci digg bi comme d'habitude ci digg bi laay waxee nit mënul wax bama wax sa côté ta nek ci digg bi ak lima xam ak lima dund wax bàyyi li bàyyee kenn dund li nga dund yow ak say bàyyi gérer kooku moom man je ne gère pas ndax du ma wax ci vie privée nit su ko nanga ko abidé Iba Fama la jaal ñëw Macron bi nag ku ci xam dara rek je te lance un défi génnal wax kenn du leen ci wax dara lu dul tirailleur te man ça fait quinze jours dem leen sama live wax naa ci ba pare du ma si waxaat